Faar matu maa ngi lay fay euh, di la ziar di la jox sa wàccuwaay euh, di la kontaanee si déplacement bi nga déplacé wu ñëw ba Kër Massar fii seet si ma maa la si sant bu baax di la ci gërëm euh, di nuyu waa Kër Massar rawatina place bi ma toog muy place Sopp nag di nuyu borom place bi Moussa Kare nekk suma rak ma fekk ko fii wax dëgg yàlla ñëw rek bett ko indi fi si def fi émission moytuwul deful dara néew ma fii dama fiy liggéey wala dara. kon yàlla ma sant ko ci quoi di nuyu waa Kër Massar ron tamit euh, di commencé indi si suñ papa Aldo kon ni ma ko waxee woon keroog nga xam ne fii si làmb moo fi suñu kilifa maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar bu ma jógee Kër Massar damay dugg jaxaay nuyu waa jaxaay euh, jaxaay gépp nuyu 100 pour cent jaxaay bi di nuyu suñu papa Serigne Ndiaye bi nga xam ne mooy suñu papa foofu di suñu mag ci làmb nga xam ni lu ñu jaxal ci làmb moom la ñuy daw seeti amul guddi amul bëccëg te duñ ñëw ba mu ne damaa jàpp wala damaa wala damaa def lii ñu koy nuyu au passage di ko jox waayam di ko jox per ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér di nuyu Birama Niang di ko ziar bu baax di nuyu monsieur le maire Abdou Aziz Diané di ko nuyuwaat encore une fois di ko woo tamit ci li ñu dëgmal nii di nuyu Dieng Ndiaye Dieng Dieng Ndiaye di nuyu Moussa Moussa Niang nuyu Ngañ nuyu nañ ñëpp parce que jaxaay autorité yi bari nañ di nuyu xëstadi suma patron di ko ziar euh, di nuyu tamit euh, sama patron bopp nga xam ne guddi yi moom laay liggéeyal. muy Samba Ndiaye euh, borom central BTP di ko nuyu bu baax a baax a baax mu nekk promoteur suuf di yëngu ci affaire suuf di jaay ay tere ak ay lépp loo xam ne jëm na ci loolu ak ay location oto ak lépp lu waay bëgg ci xeet yu demee noonu boo demee ci moom fekk ko fa di nuyu Grand Ndoye tamit borom NCS moom it maa ngi koy ziar bu baax a baax ci loolu lay yëngu xarit Samba la di nuyu Biige nga xam ne moom it sama patron la di doom si Samba di nuy Dukure di nuyu waa bureau central yëpp. bàyyiwuma kenn parce que ku lim doo juum mais mun ngaa bañ a matal di nuyu sumay mbokk tamit matu di ko commencé suma rakk papa muy Amet An nekk jaxaay maa ngi koy nuyu di nuyu doomam Seer An di nuyu suñu waa kër tamit ñi nga xam ne ñoom laa bokkoon ndey baay may nuyu suñu xale xalifa kër muy aadama di ko ziar di nuyu sama yaay muy Awa Diop nga xam ni sama yaay dem na waaye jooyu ñu yaay ndax moo taxaw suñu ginnaaw kon ñu ngi koy nuyu baax moom it di ko ziar di nuyu sama rakk yëpp nag ak samay mag bàyyiwuma kenn nuyu jeg yi sëy si kër gi tamit mu mel ni ñoom faataan ak ñoom absor maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu ñoom aji Binta Ndiaye nuyu ñëpp nuyu nday suma jarbaat nuyu aji Guèye xam nga jéggi doon xaw bari nag quoi mais ma ci beral nuyoo tamit xam sama séeri bopp nga xam ni moo sa siman rek te rekuma xam nga muy aji Fatou Samb nga xam ni mooy waaw mooy suma soxna quoi moo koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm taw féex di ko wax fi mu teg tànkam tamit baax na na góorgóorlu yàlla baax na mu gën a yokk waaw fi ko teg moo baax moo tax xam nga rek bu baax la ko teg matu <laughs> ku gis nen ni nene ngi nii quoi parce que taj bi ñu ma tuddee drapeau def ne ma bul jaar fenn bu la kenn solal ba nga sol ko dinaa la solal ba gaa yi xam ne solal naa la keroog ma toog mu woo ma jox ma téyeer bi téyeer bi laaj ma loo bëgg xam nga ma ne ko moom kon ko moo def loolu lu mu def baax xam nga loolu yombul. kon def baax na. déggoo ma waaw matu bala maa ñëw ci kan mooy baara sax maa ngi xel day fatt quoi parce que ñun ñëpp ay doomu adama lañ waaw ñun ñëpp ay doomu aadama lañ te xel day fatt waaw dama nuyu ñëpp 100 pour cent Kër Massar beeg ñëpp mais nag ci biir nuyoo bi dafa laaj ma taxaw nuyu suma waa écurie muy sama école de lutte école de lutte Boy Seye di njëkkee nuyoo bi si président bi muy maam Thierno du suma rakk tamit quoi doon ko jàmbaare doon jàmbaar fàkk tëdd di ko nuyu di nuyu soxnaam Ndey Buri di ko ñaanal yàlla yàlla fëgg cër yi foofu noonu mu tëdd noonu siburu dal ko xam nga yàlla ko siburu bàyyi ak jàmm parce que suma rakk la dara walu ko daal dara warul daal maam Thierno muy king pour Kër Massar gaaw ko xam moom mooy président écurie bi di ci bay waaram bàyyiwu ci dara di woo sey de sëy de nga xam ne mooy tedd fii lu écurie bi bu ma ko nuyoo mu yóbbaale mbër yëpp géew mën naa lim mbër yëpp kenn par kenn mais suñ tuddee su sëy de mën na yóbbaale mbër yëpp parce que dañuy bañ a tamit quoi di nuyu suma waa écurie bu baax a baax baax di nuyu écurie am di Thiam suma rakk di nuyu coach bi Pape Thiam di nuyu am di muy président bi su ma nuyoo foofu tamit damay nuyu soq mi tëdd fii lu foofu mu yóbbaale ñëpp géew nga xam ni ñoo bokk journée bi maak moom di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko si jàmm mook saakajoor suma fils bi nga xam ne mooy bëree suma drapeau yàlla na leen yàlla defal ndam lu sedd guy di nuyu jaxaay ron di nuyu école de lutte Père Serigne tamit di jël nuyoo école de lutte Père Serigne di ko teg ci loxo Pape Diouf mi nga xam ne mooy doomam mu yóbbaale ko yëpp bu mu bàyyi benn mbër ñoom fit feek ñëpp nuyu nañ leen matu noonu la demee léegi nag su ma ñëwee pour wax la kan mooy baara baara benn jaamu yàlla boo xeebu la nii rek bu nekk si zone Kër Massar bi mën naa ne départ yëmbal mujjee ñëw Kër Massar mujj gi maa ngi teere jaxaay parce que jaxaay sax Kër Massar la ndax Kër Massar département la léegi te jaxaay si Kër Massar la bokk kon génnuma jaxaay génnuma Kër Massar ba léegi maa ngi Kër Massar di nuyu waa Medina Kell bi nga xam ne fa laa dëkkoon avant maa dem jaxaay maa ngi leen nuyu bu baax rawatina nag waa groupe bi ñu naan Babylone Family maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp si groupe boobu nag dama siy nuyu Ibba Diop ak Omar Diagne nga xam ne ñoom ñooy mag yi foofu maa ngi moom ñun ñett ñoo fa mag kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu suñu rakk yi nekk ci groupe yëpp di ziar ñëpp. waaw matu lamb li ma booleeg moom nag xam naa ni mën naa ne sax deret la mën naa ne deret la ndax sumay papa bëre nañ sumay papa doon nañ bëre surtout sama rakk papa moo la wax ni léegi na la moo yaay waaw te dañ ne wax ma ki la yar ma wax la sa jikko wax dëgg yàlla yàqul ci man dara amaana sam papa tamit nekkoon na ci lamb sonn ci lool. di si ànd ak ñoom père Aline Seye ñoom père Ali ma leen di nuyu au passage ma koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na yàlla man de ci kawam mook góor a sekk ak mama ba père Aline Seye papa woon ci man mook suma papa ñoo doon ànd ci làmb di ci daj lu ne euh, sama rakk papa nag da doon bërindoo père Aline Seye moom moo ma yar bañ ma koy jox parce que booy xool damaa per rek ñu jox ma ko ci kanamam laa màggee ba nii may waxee yow maa ngi ci ay loxom daanaka mën naa ne loolu moom mu dugal ci làmb ak ma màggee si koñ boo xam ne tamit yëmbal carte base ku nekk dégg na ko daanaka daa meloon ni Fass ku fa juddoo te bëri woo daanaka gars yi dañuy yaakaar defoo dara waaw wala genre affaire demee noonu mbappat yi bëri fa am ay grand fa doon tëgg mbappat boobu ñu ngi nekk xale ñu ñëw ku indi sër dugg man foofu laa may indi sër di dugg par benn mbër sama jarbaat ñoom papa la da daan ngemboo suñu kër di bëree ji bu demee mu jug mu may yóbbu may toog si cumikaayam muy booy melax maa ngi koy nuyu muy Ablaye Seck léegi mag la sax mu ngi fii xam nga nekk suma mbokk dem su ma ko mosaan yóbbu foofu muy dem mu dem ba ma dëgër mbapat boobu nag daa yàgg foofu bi ma commencé dëgër dañuy ñëw di bëre première parti yi ku indi sër ñu bàyyi la nga dugg xam nga nga bëree yenn saa yi xam nga ñuy bëree muy neex ci noon laa jaare mais li ma dugal ci làmb dëgg dëgg dëgg dëgg nag sama benn grand la bu ñu naan Sadiou Fall mais ñun lañ ko doon wooye moo ñu yoroon ñun ak ñoom Ama Dia ak suñu gars yëpp mhm. waaw moom moo ñu tàggat daanaka dugal ñu si bëre xamal ni ñu euh, yéen da war a nekk mbër fekk ñu koy fowee nii rek mu ne lii ngeen di def nii amul sens di jéem a ñëw ngeen bëre nii ñu commencé di bëre commencé ñu ñu dugal ci mbapat yi di ñu jox ay combat ñuy dem parce que loolu mi ngi nekk fin 99 2000 mu commencé ñu ressembler ñuy entraîner seen kër ma koy nuyu bu baax a baax nag toj nañ fa ay paan toj fa ay ndaa xam nga contact gu mbër moom fu mu am surtout bi ñu demee bay am doole rajax rajax yi foo toll xam nga waa kër gi musuñu mer ñuy nuyu ñëpp di ñaanal papaam tamit Pa Fall suñu papa Khalifa fal yàlla yërëm ko taxaar ko àjjana ak tons benn nijaayam boo xam dafa bëggoon làmb moom it Sadio bi ñu encadré ba équipe bi commencé dëgër ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci waa koñ bi tamit ñëpp ñëw jàpp ci mais lépp lépp daal maçon ak Sadio bu Fall suñu grand la suñu lépp la matu ma naa la sama carrière lamb su sooxee kooku moo ma sori neexut a dégg nag quoi ndax des fois day ànd ak ndogalu yàlla mais maanaam daal bi mu tukkee dem Espagne la sama lamb commencé jaxasoo quoi ndax taxawaay bi mu amoon ci man amoon ko ci waa koñ bi rawatina man après gisuma keneen ku ci am parce que danoon teg loxo bu baax baax Seras la liggéeyee dafa jaral sax bu ñu bëggee tëggal làmb mbapat ndax jamono yooyu yëmbal làmb mbapat dañ daan fay xaalis bu ñu bëggee fay boobu surtout man ndax dama mën a yàlla dimbali woon na ma mat dama mën a bëree ni nga may gisee nii wax na naa ko Seydina keroog mu ne ma looy wax ni mana ko su ma neexee mana ne maa fi dàq bëre te du ma ci dellu ginnaaw matu lu gara laa lay wax matu nañ ma gis ma may lagar lagar nii ci làmb ji di dem di ñëw rek man tooguma ba làmb neex rek ma ñëw nekk entraîneur de man du ma ñafe suma laayaf ci làmb ci bëri ci mbapat sonn mën naa li ma daj ci mbappat tey moo ko dajoon ci arène kon heure bi neneen lañ may xamee mais du nii mais nag sant yàlla la parce que xàcc boo gis wërsëgu waay la noonu la demee man lii moo ma dugal ci làmb mat waaw matu du daanaka sax écrit bi sama loxo la nekk amul daanaka parce que tey lu jiitu loolu sax bi ma nekkee yëmbal di ñafe ci mbappat yi di faayit di fanaan ci mbappat yi di bëre di dem ba nit ñi xam ne lii nekkatul lu ndaw nekk na lu sérieux mhm. boobu yoron nañ benn écrit bu ñu naan sopp sëñ Mansour écrit mbappat la woon ñun ñu nekk si ñu nag ñoom Ama ñoom Papa Ndaw ñoom ñëpp après ñoom Papa Dia nii nekk ay xale yu ndaw nekk suñ suuf mooy Alioune Seye junior bi ànd ak ñoom Abou Si ñoom Ma Alsane yeneen booy bari woon nañ foofu macha allah ñu nekk fa bi ñu demee bay bëree nag ba ma taxaw ba làmb ba fitti ba taxaw dëgg-dëgg gaa xam ne kii léegi làmb gi ci moom après nag gars yi ne luy jot jot na ñu yóbbu ma ikiri walo pour ma bëree ji arène matu ma wax la lu garaaw ikiri waalo balaa nekkoon man matu samay booy mbër ñi ngi may dégg man aw ma boxeur buy jàngale xeex sama ikiri man maa leen di jàngal xeex maa king président bi man booy fii koo fi gis muy xeex su la ko waxee su la ko waxul man maa leen jàngal xeex déggoo ma de maa ngi siy waxtu su ma àq mën naa am nag ñu ngi làqatu feneen ruq mais mën naa ne mhm. su ma neexe ma ne ñoom li nekk si ñoom maa ko ci def ñàkkul nag loolu ndax athlète bu ne di nga am fooy làqatu am looy cof mhm. mais dama ne la matu booy à bas âge laa leen téye ñoom ñii ñëpp ba fii ñu toll su ma ko njëkkee seen mag booy see numéro 2 mhm. bi ma koy yor dama ko doon yor naan ko booy see boo maa ngi takk ngemb di bëre muy bëree ma woo ko ba mu ñëw ma ne ko Boy Seye mu ne boo gëmee làmb mu ne ma waaw ma ne ko mbaru Kër Massar yow lay nekk ci télé laay waxee barki yonente yàlla Mohamed bi ma ko koy wax boobu mi ngi nekk xale bu ndaw tey loolu ñëw na loolu ma ko waxoon ñëw na bi ma ko koy wax da ñëw entraînement mi ngi may dégg bu méttee mu tëb miir bi dem ñibbi xam nga sëy def ku ko ku ne xam na ko dara kenn du ko te des xam nga ma ne ko booy benn jour ba mu ne ma waaw ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko booy boo gëmee làmb mbëru Kër Massar mi yow lay nekk trop tard xam nga maa ngi takk di bëre bàyyi wu ma bëre mu ne ma waaw ma ne ko soo ko gëmee trop tard yaay nekk mbëru Kër Massar ma koy wax ak moom tong ñoo taxaw ak yàlla bi mu demee ñuy avancé ndànk mu wax ko benn ku ko yoroon ku naan Alpha nekk papa ci moom këram lay ngémboo ba nii nii nii mu wax ko Alpha ne ko baar na yoon su ma gënee su ma gëmee làmb dinaa nekk mbëru Kër Massar fekk lu tiit loolu Alpha wax na ko Alpha ko benn kàddu du doon ñaar te nekkul dëgg góorgóorlu ba nii tey yàlla def ñu mu nekk fi ndax des fois baaraam jaxasoo mu tënkal waaw matu fi mu ne na trop. la mooy jaxasoo loo xam ne kenn munu ko lijjanti loolu mooy jaxasoo mais ñun suñu écrit mën nañ ko lijjanti ñun boo gisee suñu écrit yaatu lu ñu staff bi mu yaatu xam nga lu ñuy bañ kon jaxas jaxasoo bi nga wax nii moom la ñuy bañ écrit bi ñaari nit la am ñaari membre amoon na ñeneen mais dem nañ kon damay guddi yi damay toll dama naan ñaari membre lañ am muy président bi ak entraîneur bi man makkin waaw ñoo fa nekk parce que sax ngoon ñooy nekk booy yi déggoo li ma la wax booy bu ñu ci woo lamb tey ne la kaañ dem ñoom ñëpp ñu ngi ñuy dégg yow dañu lay fekk arène nationale chaque jour di jël si adversaire wala ñu jël si avance wala ñu jël si reliquat ñun ñooy taal suñu moto benn booy du ñu jox 100 francs ne ñu jëndal essence ñun ñooy jënd suñu essence bu dee dañu woo adversaire baara indil diw mu ñëw xool adversaire dama naan ko diw ba ne ma waaw ma ne ko nañ daje fi woo king king ne ko boo njëkkee bu dee man nga gën a jege ñëwal ci man king yàpp ko yóbbu ma taal suma moto ñu daje bu dee ñaari booy la king day yàpp kenn ma yàpp kenn ñu dem xar si suñu tànk tubéy xooluñu si 100 francs nekkul tamit dañ topp booy nii di lagar lagar rek ñaan nan yàlla tey booy tekki ci làmb teral ñu parce que mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax mhm. nañu waxante dëgg kon ñun suñu écurie amul jaxa-jaxasoo mais dafa am benn règlement bu ñu fa teg ku ci mënul tënku nekk ci écurie bi mu simple maanaam di ñëw heure ci écurie bi heure entraînement dafa am am heure wàcc beneen bi mooy ngay entraînement entraînement bu réglementaire ñu nag ku dem surtout kuy liggéey ñun bañ nañ ko ba suñu écrit bugguñu athlète bu dul liggéey ndax bugguñu kuy am doole duñ topp te doo defoo dara bu ëllëgee loo def ñu ñoo la ko defloo ñun li ñuy njëkk a def ci xale mooy ngay dem di liggéey yi di la tàggat xale bu ñu xam ne da ngay tux tux métti sax dinañ ko càmbar ci yow ba xam ko ñu jéem koo dindi ci yow kon ñun xale yooyu def nañ leen kon ay doom waxuma suñu ay rakk sax kon ay doom lañ leen def du dëgg kon écurie bi ku bëgg nekk si jàmm bëgg a nekk si écurie bi mooy da ngay tënku ci écurie boo amee fooy dem nga woo king ah président king man de maa ngi dem fii wala damaa guddee wàcc wala dara loolu joxe cër la ñoo xam ne yow da ngaa guddee wàcc mais doo toog tamit ba mu neex la nga ñëw une semaine ñëwoo entraînement deux semaines ñëwoo entraînement nga jóge fee indi sa combat naan am na combat da ngay génn écurie bi hmm. waaw doo ko bëre sax duñ la dàq mais dañ naan la bëre o léegi nag yi si ëpp yi booy di dem loolu ngay def ñu ne la bëri woo nga dem sa ruq toog bëgg ñu jaxaseeg àdduna ñun kenn duñ jaxaseeg àdduna xalaat nee nañ Baara Maama Lamine rek la favoriser. non Maama Lamine la favoriser Maama Lamine problème bu. Maama la moom la moom la teg suñu kaw. waaw léegi matu voilà léegi Maama Lamine laa teg kaw Maama Lamine problème bi ñoo ñu am ba gis ni Maama Lamine laa teg seen kaw Maama Lamine bu ko gën a pire la am yow leer na la Maama Lamine combat mujj gis nga ba fa ah. te en plein combat lañ nekk xam nga ñee dama doon yàq seen combat sax ñu xam ni ñoom bëreewuñu mais Maama Lamine man maa jël combat am jox ko ko bi mu defee ni booy def dem toog nekk ci ruqam di def lu ko neex xawma ma lu ko def loo ànd ak ay nit dem nekk ci ruqam dama ko taxaw di ko seetaan ba mu desee une semaine ñu ne ma kaay yóbbu ko yow mii ci ñi ma ko doon wax nga bokk dama ne la du ma dem wax day tungoom seede nañu da dëgg kon ku favoriser Mama Lamine dina def loolu matu suma doon favoriser nit ci écrit bi déglu li ma lay bu baax benn mbindeef laay favoriser Vieux Dacia waaw kay kooku dafa yëkkati teraanga di ko def ci man ma koy nuyu au passage bu baax a baax a baax mu doon ku baax nekk ci igri bi xam nga li ma la nekk fi athlète kon ñëpp su fekkoon damay favoriser mbër kon Vieux Dacia laay favoriser Vieux Dacia jënd na moto may ma yow dawal naa moto ba si yow ma ne la Vieux moo mu jëndal moto bi mu may moo ko ci xol bu sedd guy nag te ba léegi mosuma dox dégg nit ku ne mu Vieux nee na moo la may moto kon xam nga ne may na ma ci xel mu sell ba pare di yëkkati ay kopparam di ma ko jox waxuma lay weccit Vieux daan yëkkati ay xaalis di ma ko jox su amee combat chaque jour mën na ma jox 10 000 wala 15 000 ba diiru combat am di jeex te vieux du du pare ay combat ay 15 jours ay combat dara ay combat ay weer la doon pare kon su ma amoon ku may favori dama naan kon kii di ma jariñ dara naa ko favori mais ren bi mu ne day renouveler licence am samay gërëm la ko vieux ba mu ne waaw ma ne ko mu lu tax ma ne ko kañ nga fi ba nga bëreeg Youssou Ndour ba léegi mu ne ma waaw ma ne ko mënoo fee renouveler sa licence xam na li ma ko wax merewu ma merewu ma ko te pourtant bi ñu ma tuddee drapeau dama ko wax ko ko ci dëgg laay dox matu ku ma siy jàpp nga jàpp ma si ku ma mooy problème bi favoriser wuñu kenn maama Lamine dafa ñëw yàlla moo koy tudd mooy tudd loolu man bu doon mën bëre mooy tax nit am xaalis matu kenn du ma ëpp xaalis ndax kenn dàqu bëre du dëgg nit da ngay nekk si benn métier di ci bay sa waar miin ko lool xam si ay secret yu bëri nit ñëw sa ginnaaw yow nga def si fukki at nit ñëw def fa ñetti at di am ci métier bi loodul am na nit ñi jàpp ni loolu mbiru yàlla la amaana maama Lamine bi mu ñëwee ci igri bi ñëw na di bëre affaire am gaaw ñun xa amuñu xàjji ak seen ñun mbër bu ci am combat dañuy yeewu fajar maa ki yóbbu la kon ni ñu yóbboo maamalamin Lamine ngoon ñu ànd ak yow booy bëri ñu ñëw sa kër kon nit ñi defal Maama Lamine lan lañ defal Maama Lamine lu ñu defalul booy ba koy favoriser. bu dee ci côté combat la Maama Lamine dem la ba tolli si Maama Lamine benn combat laa mooy premier combat am ndooy mi ngi may dégg ma Maama Lamine ma koy utal combat bi amul amul licence dañ dem CNG mooy dugal licence am dal ci ndooy ma longu Maama Lamine ne ko ndooy mu ne waaw mana ne kii sama la école ba nekk Maama Lamine nekk tuuti ma ne ko licence laay dugal nii bu génnee jël ko utal ko combat ma ñibbi ndooy woo ma ne ma ndax booy mën na a dat nangam ma ne ko waaw benn combat boobu laa ko mos a demasal gis des yëpp promoteur moo may woo Mama Lamine laa soxla mais Mama Lamine laa soxla bokkul ak Boy Seye numéro 2 laa soxla Boy Seye numéro 2 laa soxla bokkul ak Vieux Dassé laa soxla nañu waxante dëgg damay jël joxe xam nga Boy Seye numéro 2 kenn dootu ko wutal combat promoteur mooy toog soxla ko woo ñu ne Boy Seye laa soxla ñu demasé ko bu taxawee mooy loolu Mama Lamine toll na foofu ak ñeneen ak ñeneen mais kon fii kenn favoriser wul kenn ku bëgg ñu lay favoriser da ngay ñëw liggéey làmb promoteur yi ñoo lay xool nga liggéey am jom toog ci écurie bi am ngor ñun ko am ngor sax ñu lijjanti la combat ngor bi mooy ngay ñëw heure di wàcc heure fooy dem ñu xam ci lan nga ne matu amuñoo kenn benn problème na booy bàyyi di wax loolu. kon leer na. non dafa leer lëndamul fii ah. leer te wóor la. du leer kase dafa leer te wóor lépp si jëli bi lay reere matu. mais borom place bi nañ ko bamtuwaat balaa ñoo la sopp na sama rakk ju baax la. moom fii la nekk si suufu pont bi képp ku soxla téléphone wala accessoire téléphone ñëwal fii lépp loo fi bëgg am na fi te lu leer la lay jaay te wóor kon li ma la waxoon léegi numéro mi ngi noonu di daw si suufu baar bi 117 la 312 63 05 loolu yomb na boo ko woowee mu ne la taxawal ci pont bi day génn tàllal la loxo 312 la 63 uh-huh. 05 uh-huh. Moussa Kare la sopp na bi mi ngi fii taxaw soriwul taalibe sëñ Babacar Si bi ay te nañ dem man ragaluma loolu moo tax <laughs> drapeau lañ la waaw loolu am na waaw. ndeysaan. dañuy waxtaan ci lu yaatoo yaatu yaatu yaatu. Mhm, mhm. tolluwaay drapeau bi bala ko Badiane tuddee nan la la def. sant yàlla matu sant yàlla bu wér ma xam bi ginnaaw bi ma Badiane tuddee drapeau ba pare damay sant yàlla di ko sant ndax ku dul sant doomu aadama doo sant yàlla. parce que tey Badiane sama diggante moom mun naa mun naa si bañ a nekk sax di ko waxaan ndax fan yëpp maa ngi dafay interview di ko ci wax Badiane dafa gore su gorewul woon du ma tuddee drapeau ndax xamul ndax Badiane gis nga tëgg mbër sama écrit bi mu tuddee ma drapeau nii Badiane musul tëgg mbër sama écrit te nekkul maanaam dafa dafa toog nii rek tëggu ko de Badiane démarché na ay mbër sama écrit te ci man la jaar ñu waxaale jubóowuñu ma téye booyi su ko neexoon du ma tuddee drapeau xamal lii innovation la ja dafa gore ma ciy sant yàlla di ko sant di sant promoteur yëpp ndax benn promoteur bu tuddee benn nit darapo mel na ni ñëpp la ko tuddee promoteur yëpp laay sant mën naa toog fii di tudd ay promoteur yu bari mais am na si ñoo xam ne doo xam seen tur te dañ yaakaar na leen bañ a tudd ñuy tudd tamit Fallou Ndiaye parce que mënuñu ko bañ a tudd ndax fii lay yeewoo Fallou Ndiaye fii lay yeewoo jaxaay fii ñu nag moom ñëw dëkk wax dëgg yàlla mu nekk suma rak nekk suma waay xam nga ñuy séq jàmm maak moom ak salaam lamb moo ñu boole mais wax dëgg yàlla ku ma jox cër la ku ma jox cër la bu ñu gisee dañuy nuyonte jàmm sante xam nga mooy loolu kon suñu tey Badiane tuddee drapeau ñu ngi siy sant promoteur yëpp ku gën a ndaw ci promoteur ba si gën a mag di ñaanal suñu papa garçon tamit yàlla gën a fëgg ay cëram ba mu dellusiwaat fii ndax am na fi njariñ kon il faut ñu ñaanal ko mu wér matu noonu la demee Badiane dafa gore bi ma ko waxee déglu ni ma la ko waxee ni ma ko tuddee dañ ñëw si si parking bi la ma fekk xam man. utkatu dërëm laa yow yaa ma gën a xam man du ma bàyyi weer ci benn man loo foo ma gis si làmb laay dox daf ma fekk ci parking bi ñu nuyoon de wala dara mu ne ma baara tuddee naa la drapeau le 26 août dem taxawul ma ne Pam Ndiaye non Badiane moo neex rek Pam Ndiaye ne ma ni eh yow kii caaxaan kii caaxaanul de kii fële la jóge seen la ma gis mu waaxu jéggi oto yi ñëw wax la liy dem bàyyi ci jeudi vendredi samedi làmb am mu fekkaat ma foofu ne ma yaa ngi wàcc sa drapeau ma ko ci kattanu yàlla bi ma ñibbee nag ma xam ne ma jël affaire bi nag au sérieux sant ko ci nag gërëm ko tamit bu baax a baax a baax a baax xam ni keneen mënoon na maa tuddee drapeau wax laa lay wax keneen mënoon na maa njëkk a tuddee drapeau waaw mais su ma ko tuddee tamit sant yàlla du ma balaame nag ko amee xëy na yàlla moo ko dogal ci moom ne tey man moom moomay njëkk a sargal beneen bi matul li ma si gën a neex ba gën ma neex mooy nuyu association entraîneurs yi muy annexe association national des entraîneurs du Sénégal ah, di nuyu njiit bi muy Mbaye Diallo nga xam ne mooy suñu président tamit di nuyu trésorier bi di nuyu secrétaire général bi mooy Aliou Ba trésorier bi Habib Ndiaye la di nuyu suñu porte parole Cheikh Ndiaye xam nga bu mu tuddee ñooñu tudd naa ñëpp parce que macha allah entraîneur dañoo bari drapeau bi ma ko bañaan tuddee ma wax deuxième fois ma xam ne caaxaanul ma woo entraîneur ne leen tuddee nañ ma drapeau sama jëmm lañ ko tuddee mais drapeau man maa ko jëlaat jox ko drapeau entraîneur fi mu toll nii drapeau entraîneur yi la ñoom laa ko delloo entraîneur yi nag ñu ngi ciy waaj lu doy waar lu garaaw laa lay wax gars yi nañ xam ni produit bi tax gars yi di seetaan làmb di kontaan mooy entraîneur kon Badiane di mu def ndawul Badiane dafa def lu garaw moom ba moom lu mu def. def na ko pare mais xamul lu mu def ndax Badiane dafa fekk xam nga li ñu lay wax naan la euh, jaay cere la fa cere ja ñoree. kon jaay na laa la fa cere ja barki walaay taalaay Badiane yow taw féex ngay am parce que xamul tax. entraîneur yi ñooy sonn ci booy ñooy nekk ak ñoom suba guddi bëccëg ak ngoon di daj ci ñoom lu ne di former di créer di indi. promoteurs yi tamit am nañ ci part de parce que ñoom ñooy jël athlète bi jox ko xaalisam mu ñëw di bëre mais nañuy bàyyi entraîneurs yi xel ndax am nañ solo ci làmb wax waxante dëgg ndax mbër mu bu mënee sumee ku rafet nit di ko xool di gis ni moom état de forme ndax am na ñoo xam ne sportif lañ bu ñu gisee mbër mu nekk ci état dañuy kontaan kon nañuy jaajëfal coach yi ñuy nuyu coach yëpp na kullu di leen woowaat annexe association des entraîneurs affaire bàyyi noonu Mbaye Diallo jour si des xaw ma mooy ñaata la des mais bareetul waaw matu mi noonu am naa ci contentement nag boo xam ne mën na am fu muy commencé mais amul fu muy yem ndax Badiane daa mel ma maa tuddee doom wallaahi déggoo li ma la wax ligaay gars yi doo askan boo si terelee kenn tereel nga askan bi yëpp te entraîneur yëpp Badiane tereel na leen ndax man dafa tuddee drapeau te mën naa ne maa gën a xeewu ci coach yi mais maa ngi ciy woo coach yëpp rawatina coach waa Kër Massar yi coach Kër Massar yi Baba sek mooy suñu doyen ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare di ko wax grand Baba li ma la waxoon keroog bi ñu taxawee drapeau mi sa loxo di woo ko su Kër Massar mbooloo mat li mooy rakk ci baaba di sama grand di woo ñëpp bàyyiwuñ kenn écrit jëf soog nekk maa ngi woo entraîneur bi Abdou Seck woo président bi euh, Modou Fall woo ñëpp kull ñëpp laay woo woo Abdou Abdou Sey président Pape Diouf mooy président 100 pour cent bi mu nekk entraîneur sortant de Fatick moom ak kii Abdou Seck maa ngi juum sax jël Abdou Seck bu ko fële Abdou Seck mi ngi nekk euh, entraîneur sortant de Fatick ñu koy nuyu baax di nuy suñu père euh, Ablaye ñang mooy turandoo Petit Niang moom moo nekk écurie euh, Mansour mbay moom moo fa nekk nekk fa coach principal bi ñu koy nuyu au passage di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn bu ñëwee école de lutte duubalees ñu nuyu mbay Zos di ko nuyu mu nekk suñu rakk moom bi nekk suñu waay dañuy dugg si nag jaxaay bu ñëwee jaxaay dañuy nuyu écurie yi fa nekk di ko njëkkee sama écurie di nuyu nu bi muy coach baaram nu ma toog si nu bi non matu il faut ñu nuyu il faut ñu nuyoo damay nuyu nuyu ba nuyu sama bopp matu mënul ñàkk matu ku gis ne ne je niet, matu man la de baara alle alias laten ndeer maa xewle lay leere si jëli jëli bi rek la am xam nga mosoo koo gis yaa nu nu nuyu ñëpp fàtte seen bopp damay nuyu sama bopp ziar sama bopp di ñaan yalla defal ñu tawféex ak tay di duggu ni ikri Père Serigne di nuyu suñu papa Serigne Ndiaye nga xamni mo fa nek doon coach principal bi ah Euh, zoo technique nag moo nekkoon seen président xamatuma nag ku ko nekk mais ñu nuyu suñu pap Serigne Ndiaye encore une fois dugg ikir am di di fa nuyu Pape Thiam korsu bi xam nga di ko wax ni moom suma booy la suma lépp la xam nga di ko ziar di nuyu am di caam président bi di dugg ikiri ñàkkurab di nuyu Scorpion mi nga xam ni mooy champion bi di tête de file bi di nuyu seen korsu bulldozer di ko ziar bu baax a baax a baax ñooñu suma ma leen nuyu nuyu naa ñàkkurab yëpp di dem ñàgg di nuyu ikiri ñàgg bi di ko teg ci loxo korsu Thier moom it mu doon suñu rakk fii lañ ko formé Kër Massar xam nga mu nekkoon fi champion bay ci waaram ba yàlla def li yàlla def ci moom mu mujj nekk coach i ñàgg di nuy booy ñàgg di ko félicité si combat bi mu jógee bii passé di ko ñaanal ndam li na ko jig di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn matu parce que ku lim doo juum te xam naa ni li ma war a lim su ma ko limee sax ci émission xaj na ci émission lim bi rek ñi ma naan a lim di nuyuwaat maam Thierno bu baax a baax a baax a baax su ma rakk bopp waaw di nuyu soxnaam Ndeye Diop di nuyu sama soxna encore une fois waaw ragala fay de day xañ wërsëg aji faat sàmb waaw ziar naa la bëgge naa la nuyu noonu naar bi matu yow it di la sant di la gërëm di nuyu Amadou suma copain di nuyu les frères de carte basse Amadou sama doomu nday du sama waay suma doomu nday la nekk suma xarit Amadou tey jëmmam mun nga ko see wax lu ko neex mu muñ ko mais Amadou soo toogee man su ma fa nekkul sax soo waxee si man safaan Amadou xeex ak yow lu leer laa lay wax matu dalagoo ci loolu nag mais Amadou barki yonent yalla Muhammad man su amé luma lu metti ba war ko joy su fekkee amajo amajo la koy joy ba damay ragal joy lol du lu ndaw di nuyu gey Touré suma xarit borom impôt domaine di ko ziar mi ngi ñag nek suma way momi it xala ba ñu and di nuyu Mamdam, dam di nuyu les frères de carte passe yëpp nuyu Amadou Saw ñu nan ko Amadou Kawasa mi ngi Murtani Nek suma way di nuyu suma suma copain nak mal. champion la ñu daan bërëndoo momit mi ngi Murtani legi nuyu les frères de carte passe di nuyu suñu rakki nak machallah dañu bari ñun ñëpp ñoo bok groupe léegi ñun ñoy and may nuyu le frère de carte passe yépp di len wowat di len wax samedi rendez-vous kër ga la jaxay ku xey na nga ñu wajal def lepp rambal bu mu baax gaay yi lu reuy ñu dongali utali arène nationale kon ni mu nga daan may ngeen may top may dem li la yalla dogal ci man té yalla def na ma kët suñu sargal ma tuddé ma drapeau té matuna la wax ben affaire dé gaay geussu na ñeneñ nee ba commencé wéré ñi ngi do gis ko drapeau hmm. wa kon dama koy santé yalla bu baax baax baax di wax mbir la def yàlla na ko yàlla taxaw taxaw mboolem jullit nag di taxaw entraîneur yëpp may ñaan yàlla yàlla yàlla dem chaque lamb ñu tuddee benn entraîneur drapeau wala ñaar parce que mérito nañ ko ñu ñooy defar affaire bi dégg li ma la wax ceeb bu amul xorom du saf xoromu lamb entraîneur yi la matu rang